bil Mustafa li banal quddus madrasatan biha yazulu al-adha wal jahl wal kamal bil Mustafa li banal quddus madrasatan biha yazulu al-adha wal jahl wal kamal li nga nekk mu fas ko yéene ànd ak yow ba liggéey yi muy taxawal moom itam ko ñaanal ndax yim sumb ci ay liggéey bari na waaye na nga ko daan waxee rek xam na ne lépp dugg sa nopp lam ko am ndax li mu jublu dem mooy fas yéene mboolem la waajur mu daan def ci xam-xam loola mu xam ne loolu seen warugar la muy góor muy jigéen war na kenn ku ne ci ñoom ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi nga fexe ba gone yi ndaw yi am xam-xam ndax réer baña am te sëñ Murtalaa kat li mu doon xeex ci xam-xam lépp bañoon réer am rek ndax su réer amul danañ xam sëñ bi ndax réer rek indi ku xamul la ko teg jàng am xam-xam ba man a xam sëñ bi man koo liggéeyal ba lii ngeen tàmbali tam muy université bii gone yi jàngee ci école yi ndaw yi mën a dem ci université bi ba liggéey bi mën a jëm ca kanam te xam nañ ne bu ndaw ñi amee xam-xam rek li nga bëgg da ko am loolu la doon wax ne nañ la ko jot li jërëjëf Mbacke بالمصطفى jàppee sëriñ bi mooy sa mag di sa mbokkum taalibe di sa xarit kon loolu doy na sëkk. waaw sa maam ci université di la ñaanal suñu borom defal la ci ndam ak barke di la ñaanal suñu borom dool la kàttan may ak wér fan wu gudd lool ba liggéey bi nga am sa liggéey maam nga àggale ko ànd ak euh, kuréel gi nga xam ne mooy fondation pour l'éducation euh, pour tous à Touba dañu demoon ziare ji Serigne Touba Serigne Mountakha di ko yàgg ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér. Euh, li ñu taxoon a jug nag mooy présenter Serigne Touba Serigne Mountakha suñu programme bi nga xam ne moom lañ am ndax xam nañ ne njàng ak ak yelleefu bépp xale boo xam ne dafa juddu tey ci biir Touba la ak li ko wër di ko leeral programme bi nga xam ne direction. des écoles modernes bu université Cheikh Ahmadoul Khadim ñoom la ko santoon ñu defar ko muy programme boo xam ne ñu ngi ko commencé woon de 2018 à 2022 bi mu noppee itam ñu valider ko techniquement def validation technique bi valider ko ci kilifay dëkk bi ci njiital sëñ Ishaaka Bachiru ak ci njiital euh, sëñ Saliwu moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ak ci teewaayu sëriñ Ahmadou yu Mbacke bi ñu ko valider ba noppi ñu valider ko defaat yóbbuwaat ko tam waa ministère teew fa ministère de l' éducation yebal fa délégation bu mag ñu étudier programme bi valider ko validation institutionnelle nga xam ne tey programme bi ci 2023 2024 la Serigne Mountakha ginnaaw ba mu ko validé waatee moom ci boppam moom Serigne Mountakha joxe ndigal ne nañ koy jàngale ci école privée yi nekk Touba ak école publique yi nga xam ne ñoo nekk Touba loolu nag di jéego yu am solo ndax programme bi mi ngi nii ñu tiim di programme boo xam ne dafa matale ndax dafa commencé ci njàng euh, primaire dem wàcc ci cycle collège ba nga xam ne egg na terminal bàyyiwuñu dara def ko ay pàcc yu baree baree bari te programme bi li ci gën a am solo mooy ñoom dañoo jël euh, programme yi nga xam ne moom moo fi nekkoon saytu ko renforcer ko dooleel ko yokk ci njàngaleem islam te njàngaleem islam ñu ci yokk mooy njàngaleem Serigne Touba. ba am na ci yoo xam ne sax dañ ci dugal njàngale mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi ku mel ne sëñ Bay Jaxate muy euh, wax dëgg yàlla euh, programme boo xam ne matale na jàpp nañ ne bu ko xale bi dalee fii ci ak li ko wër di ko jàng ba egg terminal kooku mooy xale bi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa wax nga xam ne njàngum français mbay mat sëkk njàngum diine mat sëkk bu ko booleek njub loolu mooy texe àddina ak àllaaxira comme ni ko sëriñ bi waxee ni ñu jàngee tubaab yitte ji rek ci am solo buñ ko boolee woon nag jàng seen diine bu fekkente ne nag xam-xam adduna bi mat na xam-xamum diine bi mat kooku mooy jëmm ju wér te xam ne njaboot gi ni ñuy jàngee tubaab nii la ñu mën a jàngee arab nee nañ mën a jàng gën a xamal seen diine waaye xam am sa di xam la nga war a xam ci diine xam la nga war xam ci tubaab nga boole ko waaye loolu texe la loolu loolu bu àndee ko njub ak diine texe nag àlaxira la loolu nag lañ bëgg ci Touba ñun nag ñi ne moo tax a jug mooy dañoo bëgg ñëpp jàng ci programme bii nga xam ne moom la ñu Serigne Mountakha andil muy tawféex ju rëy ndax dañoo jàpp ne ñi am waruñoo jàng ñi néew doole bañ a jàng ndax Touba ku ne xam ne ne néew ji doole ji tey boo ko doon seet téeméer boo jël mën nañ juróom ñett fukk ñu seetee sëñ bi nag ba leeral ko suñ li ñu tax a jug ak li tax a jug kuréel gi sëñ bi rafetlu na ko ñaan na ci te it mi ngi ci soñ ñëpp ñëpp la ci sëñ bi di soñ ñu itam ñu wëlbatikuwaat di soññ état bi parce que na cee nekk ku ñu ci fekk ñu ànd ceeg yow sëñ Mourtala suñu waajur daan digle ne nit da koo war a jàngal ba pare fay ko kon kooku dimension bi mu nekkoon xëy na ñun mënuñ faa egg tey dañuy woote doomu Touba yëpp la bëgg ñu jàng te duñu fay ñi nga xam ne suñu borom may na leen wërsëg ñu mën a fay ñu dem ci école privée yi am na ñoo xam ne programme yi ñu jàngale kenn xam ko kenn contrôlé wu ko woon comme sëñ bi joxe na ndigal nag danañ koy saytu te contrôlé ko te comité boobu mi ngi nekk ci biir université Cheikh Ahmadoul Khadim ñu bëgg ñëpp tënku ci ñu fexe ba ay collège am ci dëkk bi mooy comme xale yi bu ñu xasee instauré programme bi ba mu sax ci dëkk bi li génn dëkk bi nag ñoom mën nañ ko bañ a jàngale te su boobaa su fekkee xale bi daf fee jàng def fi enseignement moyen am su génnee dëkk bi pour def enseignement secondaire bu ko jàngalee beneen programme kon day mel ne li defoon ci xale bi dañ ko bëgg di def ci moom leneen donc lu ñu bëgg mooy njàng mu matale mooy de primaire à terminale su xale bi noppee dem ci université Cheikh Ahmadoul Khadim def fa enseignement supérieur am loolu daal lañuy ñuy demandé di ko waajur yëpp damaa jël yëpp jug surtout nag sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di woo na ñoom ñëpp jug takk parce que ñoo jàppale ci liggéey bu rëy bii nga xam ne sëriñ Mountakha moo ko woote. kon nag euh, mboolem mbokk yi xam ne mooy bokk sëriñ bi ñu di dina tuddi du sëriñ bi ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi muy taalibe yi maa ngi leen di yëgal yitte jooju. liggéey amul benn liggéey bu rëy boo xam ne mën naa sotti ci loolu xam-xam rawatina liggéeyu sëñ bi bi gone yi nga xam ni njabootu sëñ Tuubaa gi ci ci ci ci ci ci bokk ci njabootam njabootam gis naa ci ay gone yu ndaw yoo xam ne ñëpp ci xam-xam lañ jëm lañ bëgg xam-xam lool kon maa ngi ci gën a ñaan ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa ñun ñëpp na jóg nag ci gone yi góor gën leen cee soññ gën leen cee taxaw bool di di leen ci dimbali nañ jóg ci njaboot gi muy ñi nga xam ne dañ dañ dañ leen tudd sëñ bi seen njaboot nañ ñëpp jóg ci taxaw njaboot bi ñu jàngi xam bokki taalibe yi ñëpp nañu jóg nañu jóg xam ne xam jàng mënut a ñàkk ñëpp war a jàngi waaw taalibe yi dañoo defee ne rek dem liggéey jox addi dé ñëpp war a jàngi ñi ñëpp nañ ñëpp nañ jàngi ñu fexe ñëpp jàng ñu ngi ñaanal ñëpp màggalu jàmm màggal gu ànd ak tawfeex bil Mustafa li banal madrasatan biha yazulu al-adha wal jahlu wal kamadu